ñëw leen ñu dem tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu mbokki jullit mbokki taalibe yi mbokki internet yi ah, di ñu bàyyi xel ci seen chaîne production Tawfekh production ñoo mbégte di leen nag yëgal bés bu am solo bés bu màgg bu ñuy dëgmal di lan fukki fan ak juróom ci weeru safar atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ah safar googee nag di fàttaliku nag demuk Seexul Xadim Sëriñ Tuubaa Xadim Rasul ci géej gi tukkeem boobee mu doon woote ñëpp sant ko ci yàlla ah mbokk yi mbégte googee nag waral na Tawfekh production bëgg leen ci gunge si safar yi ne bëgg nga ci ah, ñu gunge la ci ak image yu am solo yu am qualité leer nañ ñëpp mën ko dund ci diaspora bi fépp ci biir xëbu Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi di 77 251 04 05 ah mbokk yi ñu déplacé wu ak suñu équipe bu xarañ bu xarale lool ñëw nag fekk leen fi ngeen nekk ak bërëb bu ngeen mën a nekk jëlal leen seen xeexoo boobu seen événement yi ah yemuñ foofu de ak màggal gi képp ku bëgg nag fësal seen njaay moo xam publicité ak lépp lu jëm ci lu lay gunge ak lu lay feeñal ci bés bu am solo bii wooteel tamit ci numéro boobule di 77 251 04 05 daañu ci gunge dafa la ci nag liggéey bu mucc ayib ak image yu leer naññ ak équipe bu xarañ loo kii bés boobee nag am na solo am solo goo xamante nag waa Tawfekh Production bëgg ci indi tawféexe bëgg leen ci gunge bu leen ko fàtte woote leen bu baax ngir am suñuy nouvelle ah mbokk ci tamit ñi nga xamante ni bëgg nañ ku leen jëlal seen événement ci jouru màggal gi woote leen tamit am na équipe bu xarala boo xamante ni fépp fu nga leen woo ñu wuyu si leen ngir jàppale leen ci liggéey bi ndax ku nekk xam ne ni bésub Serigne Touba nag bésub ñëpp la ah waral nag waa Tafouisson bëgg leen ci indil xéwal taw feexal leen ci lool gunge leen ci kon bokk mbokk yi woote leen gaaw ci numéro yooyu ci sunu écran bi 77 251 04 05 waa Tawfekh Production ak équipe bi mu àndal ñuy ñaanal ñëpp màggalu jàmm waaye tamit di ñaanal.